Amadou Ba wax naa ko sank. lan la nekkoon ministre des finances Macky Sall wàccee ko ministre des finances daf ko ministre des affaires étrangères Légui Macky Sall wàcc nako ministre des affaires étrangères nekul dara Amadou Ba mais est-ce que ba Amadou Ba nekkee finance ba étrangère est-ce que mës ngeen dégg Amadou Ba wo nañ ko fenn pour auditer ko laaj ko sëñ bi ba kat dénkoon nañ la finance ay milliards fay jaar wa milliards yi est-ce que mës ngeen dégg

Aly Ngouille Ndiaye ak lu mu defaral Macky Sall ci Sénégal liggéeyal ko lu ne nag Linguère mu def ko mu gañe Macky Sall xëy un bon jour dàq ko ci biti jëndee ko ñeneen Mimi Touré ak lu mu liggéeyal Macky Sall Macky Sall xëy un bon jour dàq ko ci biti ak lu mu ko liggéeyal lépp ñu ñëpp génn si tuus bi sañu ñoo lëkkaloo opposition bi ñu tëj seen làmmiñ ñu tëj seen làmmiñ parce que am na lu tax amna lutax pas dafa am fu Amadou Ba na ministre des affaires étrangères nest ministre pas qui légui nee na dafa bëgg nek maire parcelle Amadou Ba bu doon Sénégal ñor len ñom dañu dañuy pour Sénégal Macky Sall ne Amadou Ba yi dañu bëgg jël place am 2024 faucons yi jaxase mu dàq len ci ñu ah ñun dañu pour un Sénégal meilleur jàng nañu am nañu xam-xam ainsi de suite ñu àndoon Macky pour liggéey pour un Sénégal meilleur moom mu jékki-jékki dàq ñu ñooñu dañuy dem ànd ak koo xamante ni bëgg na un Sénégal meilleur ñu ànd ak moom liggéey mais boo gisee nangu ñu dem ànd ak yeneen sénégalais yi ñëw ci côté opposition bi di yuuxu ne Macky sàcc la wóob le pays va mal c'est parce que dafa am fu ñu leen téye ay sàcc lañu dem leen rond-point case bi unité 8 ci kaw télé bi la Amadou Ba jënd ngan di terrain def ko immeuble def ko permanence fu mu jëlee xaalis boobu ku jël ngan di immeuble def ko permanence def fa ordinateur def climatiseur def lu ne di fa financé ay nit fan la jëlee moonin boobu Amadou Ba fan la dëkk ginnaaw palais présidentiel la dëkk fan lañ jëlee alal yooyu ay sàcc lañu parce que dénk nañ le ministère des finance ngay ñëw France yeeg avion di dem di ñëw yaay lijjanti yaay jox ku la neex yaay kii moonin ba ngay sàcc kan moo lay laaj ana problème bi mooy bu doon dañ doon auditer ay nit kenn dootul sàcc kenn mais ñun sunu problème suñu politiciens yi dañuy fal benn ministre trois ans jékki-jékki dàq ko léegi moom lu mu gérer woon li ñu ko sëñ bi li nga doon gérer loolu du loon gérer toogi na ruqam noppi continuer nag di jàppale président bi parce que xaalis bu mu sàcc fii ak ay sët sëtaatam di ñëw dañuy dund si xaalis boobu ñun jamono jooju ñu ngi dund walaakaane ñu ngi dund galère neexut a wax nekk Sénégal la nekk xool leen fii lii lu ko gën a métti lii lii lu ko gën a ñu nekk Sénégal ñu am dëkk boo xam ne nii la mel nii nii lii lu ko gën a lii lii dëkk boo xam ne ay doomu aadama ay doomu aadama pour ñu am lu nu naan faaw ñu dem si ay dex fu ay fas ak ay mbaam di naan foofu la ñuy tànk di naan jamono jooju ay ministre ñu ngi denc ay milliards ñëw jënd ay kër Europe ñee amuñu sax ndox bu ñu naan kañ ngeen di yeewu ngeen ne du ngeen yeewu bu élection amaatee suba ngeen votelaat ñi leen teg coono yi kañ ngeen di yeewu magum jëmm tamit luñ ko teg mu nangu ko dafay dagan parce que buñ leen tegee coono yi votel leen ñu votel leen ñu ngeen voté ñu falu ñu fàtte bu ñu ñëwaatee foofu naan voté la ñu voté la ñu ngeen ko xaraam subhanallah voté jamais xool leen vidéo bi rahmatullah wa barakaatu waa Sénégal a ñoo ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm fii ci région de Saint-Louis la ci département Podor ci commune de Boké Diallo bi fii mooy yaawal de Yirlaabe ah depuis 2010 la ñu am forage bi machine baa ngi nii di di daw waaw ngeen xool fu muy sottee ndox bi ngeen xool fas fu ñu nekk di naan noonu waaw lii xar yi xoolal saret yi nii day joge à dëkk yoo xamante ni à quatre cinq kilomètres eh, fu ñuy waxee liyaan jaral ranew ridwaan ferej filis dëkk bii yaawalde yirlaaɓe dëkk baa ngi nii fii bassin bi fii la ñuy naan fii bu feese même nag yi bu ñu ñëwee dañuy yëg fii rek nga tolloo fii naan guddi gi mala yi ak lépp fii la ñuy naan kenn mënu leen tere pendant depuis 2010 nii la ñuy naanee fii loolu dañ koy won waa Sénégal yëpp partage ko ci Facebook yi kilifa réew mi mun ko gis mooy kilifa diine yi ak président de la république du ak ministère yi département Podor waa Sénégal gépp nag gouvernement bii nii tey département Podor moo gën bari ay ministère dafa fees del ay ministère waaye gis ngeen dëkk bi euh, problème bi nekk fii mot nañu juróom-ñett dëkk bassin yi la am am nañu forage waaye amuñu château d'eau fii la ñuy naane nii la ñuy rootee xool leen xale yi heure bi ñëpp ñibbi nañu seen kër bu doon ay huit heures fii day fees del del del del del xool leen rek xool leen waa Sénégal waa adduna bi waa département Podor état Sénégal xool leen lii pour pourtant ah, ci département Podor am nañu déjà ñeente ministère même Amadou Ba ci département Podor la bokk parce que mu ngi dëkk Njaayeen Pendaaw la cosaanoo xaw ma côté boobu ñi si des Amadou Xoot ci dëkk bi presque la bokk Abdoulaye Daouda Diallo mooy sunu maire ak Cheikh Oumar Anne ñoom ñëpp jaar nañu fii gis nañu lii wax nañu leen plusieurs de fois mais amu ci benn ndimbal léegi nag dañ koy woon waa Sénégal yëpp nañ yëg lii xam rahmatullah wa barakaatu. dégg ngeen ko fu mu daanale Ablaye Daouda Diallo mooy sunu maire Ablaye Daouda Diallo mooy sunu maire kan mooy Ablaye Daouda jàlloo actuellement moom mooy ministre des finances naka la benn sénégalais nekkee ministre des finances toog Dakar di fa xëy di fa yeewu bëgg a nekk maire si beneen gox yéen a ko def yéen ñàkk ful mooy liñ leen di wax rek. Dieyna Gassama nuyu naa la yéen a ñàkk ful mooy li leen di wax. Allah Alaaji Daouda Diallo rakam moy consul bu Paris Diallo moy nek fi consul bu Paris gis ngeen bu nu falo nu ñu def rakam la andi def ko fi consul bu Paris Yen tax ñom ñu falu yéen ngi nonu di bok ak nak yek mbam yek fasi ndox ndox bi ngeen di kii du ndox pour fasé nani de askan wi ci bopom ci lañuy naan de ngeen ko lu mu leen wax mu ne ko gis nga ñi ñew di rod di naan pour def naan la mbaam yeeg fas yi dañuy ñëw sëgg si mbalk bi di naan ñoom seen ginaar sax du naan ndox bi ñoom daaw da jàllo seeni ginaar yu ñu yar seen biir kër ak seeni i élevage du ñu naan ndox bi yéen ngeen di naan yéen askan bi te yéen yéen a tax ñoom ñu am lii ñu am tey doy na waar doy na waar ñu ne leen yeewu leen tamit ngeen ne du ngeen yeewu bu ñu waatoon suba suba ngeen delloo mbuum sa mboy mboy nga yéenay gën a ñàkkaat jom ñëpp ti set dong lañ leen di jox ti set ak deux mille cinq cent ki Ngom mooy ñëw foofu def ngan di tengaade sol ngan di grand bubu ñëw di leen wan ne daa jaay jomba ñaaw ñëw téye ngan di enveloppe ne leen def leen en rang ngeen ñàkk bi peeru ñàkk fayda nag def en rang di yóoxoo Farba Ngom Farba Ngom mu yëkkati mu yëkkati ku ne cinq mille di maye ngeen fàtte ndox yi ngeen di doon ànd ak mbaami di naan bu leen di may 5000 yéen da ngeen di fàtte coono yi ngeen di dund 5000 bi lu mu leen di njëriñ 5000 francs sama morom mbokk fuutanke yi awa manga nuyu naa la sister sama mbokk xaalpulaay maa ngi gis benn vidéo oto Wuro Sogi nga xam ne sama dëkk la Matam Wuro Sogi jamono yële Macky Sall mu ngi ñëw foofu gis ngeen di ngeen ko gàttandoo yéen ñëpp parce que boobu far Farba Ngom jiitu na Macky Sall foofu jox na leen ay mille ay 5000 ngeen ñëw tàcc ko Macky ari Macky ari Macky ari fekk yéen dund ngeen coono dund ngeen galère Macky ñëw ngeen waroon ko yuuxu jàppale si ñi nga xam ne yenn quelque nit génn nañu di yuuxu mais da ngeen toog seen ruq ne Macky mu ngi liggéey mais gis nga maa ngi gis benn vidéo tamit dama leen di koy won léegi si yoonu Fuuta bi pour ngeen voyage yi oto bi di toog da di wut saako suuf def ko ci biir oto bi bu auto bi avancer ba gis pax ngeen jël saaku suuf yoyu def ko ci pax bi auto bi rombu ngeen jëlat saaku suuf bi dugalat ko ci auto bi dawat bu ngeen dawé 500 mètres auto bi freiner ngeen waccé saaku suuf ci taxawat demat ba kañ ba Macky Sall ñëwé kérok ngeen waron am full ak fayda jakarlo mom yoré seen yet yetu peul ne ko min tampi min may ñun dañ la falon Macky Sall pour génn galère bi mais xolalu ñuy daj nawet bi bu dëkk bi day dëkk dëkk ngay mais munoo jéggi sax mënu fa jaar da ngeen ndax deux francs yi ndax cinq yi ndax vax ndax 17 yi xool vidéo boobu tamit ñu ñëw xool vidéo boobu ñu ñëw voilà xoola dégg ñu ngi wàccee saag yi lii Fuuta la de. Hmm. xool leen xool leen saag yi nga oto bi day taxaw ñu wàccee saag yi pour fatt pax yi oto bi mën a jéggi xoola lii lii ngeen di lii vingt et unième siècle xoola xeer yi xoola xoola yi

bu auto bi démé ba seen pax ngeen freiné ngeen yenu saaku xeer ya teg ko ci pax ba auto bi djéggi auto bi taxawat ngeen jëlat seen sac dugalat ko ci auto bi kañ ngeen di egg sen ndigi kañ li nako fekkee li mën na wéy li mën na wéy ba mak Sall ñëwé kérok ngeen waron ko mëna gon li mais parce que bëggu seen di dundu galère ngeen bëgg ngeen di dundu choono ngeen bëgg